parce que ku ci nekk xam na jiyee ji am Sénégal muy benn nombre de morts bu am. boo xamante ni nii vraiment ñu ngi koy déplorer di ma masawu coono seen famille respective yi. Mhm. di leen jaale di ñaan suñu borom xaari leen aljana. amiin amiin ñoom ñëpp autant qu'ils mhm. alors question bi nga laajte je pense que tele yëpp dañ ci waroon wax dara gënul doon actualité li nga xamante ni moo xew université. parce que ay manifestation yàgg na fa am. 1968 juddoo guñu waaye dégg nañ ni mu demee. metti woon na 1978 metti woon na étudiant rey nañ ko fi metti na. Mhm. ndax mordom moo féete kaw fuuf lii ñu nekk tey di def muy politique. alors yooyu noonu yëpp bi mu amee mosoo fa dégg ñu ni la étudiant génn na saccagé ba nga xamante ni mu ngi yàq ay infrastructures mhm. pédagogiques wala sociales. li gën a féete kaw ci ñun mooy bërëb bi ñuy jànge li gën a féete kaw ci ñun mooy bërëb bi ñuy noppalikoo mooy suñu ay néeg mooy restaurant yi mm-hmm. keroog jeudi li fa am dafa jaaxal étudiants yi jaaxal monde universitaire jaaxal sénégalais yépp li fa am nag ñun dañoo bokk ci témoins yi nga xamante ni dañ ko fekkee mm-hmm. dañ naqarlu ko lool am na ay nit ñoo xamante ni nii jóge nañ ay bërëb yu ñu xamul mais bokkuñu biir université ñëw saccagé fa mu doon loo xamante ni metti nañu loo xamante ni mënuñu ko qualifier mënuñu ko comprendre loolu rek bu ma ci yamee daanaka wax ji du leer mhm. ndax bu ma nee témoin la faculté bi ma nekk di fa jànge au moment des faits ñu brûler li nga xamante nii tey am na capacité d'accueil boo xamante ni dina jël 1500 ba 2000 étudiants mu chapiteau bi ñu nekk mhm. man bi ñu may wax fee fekk ñun ñu ngi woon fi nga xamante ni mooy nouveau pavillon yoo xamante ni dañ ko doon defar pour étudiants yi. Mhm. parce que université il y a quatre-vingt-treize mille étudiants donc pavillon yi doyul ñu nekk di ko di ko dolli. bi ñu nekkee di jéem a sauver li nga xamante ni mooy pavillon yu bees yi te étudiants yi war fa dëkk ñu wooñu ni ñu faculté de droit mu ngi tàkk. Mhm. ñu ñëw mais nit ñan fa fekk ñooñu mësuma leen a gis nit ñan fa fekk. mënuñoo prononcer baatu nasaraan nit ñan fa fekk duñ ay étudiants loolu moo ñu metti mhm. te jàppoon naa ni loolu war nañ ci def ay éditions yu bëree bëri. mais avant avant ñuy xuus ci loolu euh, dafa lox loo solo nee nga université. effectif bi quatre vingt mille la. Mhm. donc comment est-ce que vous pouvez être sûr que ñi def jëf jooju noonu bokkuñu fa parce qu'il est euh, difficile voire impossible de mettre un visage ci chaque non euh, xëy na dégguñu français xëy na aussi euh, je sais pas lu ñu utiliser la comme ruse pour vous tromper wala dara mais comment est-ce que vous pouvez être sûr que ne ñooñu ils font pas partie de de l'effectif effectivement ci loolu laa doon leeral xam nga tey ñun xamante nañ quatre-vingt-treize yi du ñëpp a xamante waaye bu descente amee wala manifestation am. xam nañ lan mooy attitude étudiant mhm. étudiant yàgg na grève mais amul ingéniosité wu taal amphi te du ko def c'est une première c'est une première étudiant xamul fan la ñuy fayee vidéo de surveillance xamul fil bi fañ lañ koy daggee étudiant xamul taal oto oto jàmbur te oto yi ñu doon taal ñun ñoo ko moom mhm. waa faculté de médecine oto yooyu la ñuy defee stage yeneen faculté yi seen administration ak étudiants yi bu ñu amee ay xew-xew moom la ñuy jël comment se fait man may dagg garab gi nga xamante nii ci lay toog bu ma ci daggee damay wadd étudiants yaakaar lu dul jàng. ak je de paralyser li nga xam ne mooy mooy système éducatif bi ci biir université. boo xaw ma euh, volonté de. parce que li nga expliqué nii. mais yëpp taal oto yi xam ne moom la ñu kiiwee taal fi ñuy jàngee loolu amul leneen benn explication boo xam ne mën nañ ko ko jox. jëf ji jëfinu bandi la du jëfinu koo xamante nii da doon jëf manifesté wu ngir am lu ko metti déedéet jëfinu bandi la. parce que naturellement laal nañ fa ay biens privés. Mhm. que laal nañ fa ay biens publics. ndax ay ñoo xamante ni fa la ñuy daane seen doole dajji nañ seen ay bërëb taal nañ ko loolu du jëfinu étudiant tey la la remarque que j'ai faite. Mhm. mooy jour bi loolu di am am na ñoo xamante ni dañ doon laaj fan la rectorat féete. rectorat pour dire que c'était rectorat boo defee université un mois di nga xam fii mooy rectorat. Mhm. parce que parfois di nga am sa ay inscription bu amee problème wala ay jafe-jafe. di nga war a xam ni foofu nga war a dem ngir ñu régler ko. donc la plupart koy xam sax nag. ñoo xamante ni yow ñoo la sut. Mhm. ñoo la ëpp kooku mënul doon étudiant. ba pare tey boo laajtee rectorat fan la nekk bu ñu la waxee rectorat ñoom duñ ko sax mën a prononcer keneen ki day ñëw ni la fan la électorat nekk. Mhm. donc mu leer la ñii duñ ay étudiant ba pare li la koy waralaat étudiant mën nañ grève mais suñ biir duñ xeex. Mhm. duñ génnante ay jaas yi rarement lañ koy def loolu ku ko fa def rek nervi nga. mais comment quelle a été votre première réaction bi ngeen yamee ci loolu ba identifier ñi xam ne bokkuñu bokkuñu ci yéen. ça nous avait ébahi honnêtement parlant dañoo am njaqare am tiis am lu ñu metti ndax man honnêtement bi ma ñëwee damaa fekk sax sunu ay ñoñ di leen opposé di xeex ak ñoom. Mhm. ci lañ woowee bi. mu doon une mère de famille très diligente très avertie ni ñu bu leen dugg ci loolu parce que la vie humaine et plus importante qu'une perte matérielle mmh, donc autorité yëpp aussi loolu la ñu wax ñoom xam nañ ñi ni def loolu dun ay étudiants ay personnes étrangères lañ yu ñëwoon ci bés bi ngir def seen jëf ju ñaaw. que sont devenues ces personnes. xëy na enquête bi xamoo ci dara doo roulement bi mais je veux dire juste ci saa si ndax y a eu des interpellations ak yu ni mel. fort malheureusement des étudiants ont été interpellés. des étudiants nga ma wax. ce que nous déplorons. des étudiants effectivement ont été interpellés. man je parle pas encore des gens ont fait ces dégâts. waaw parce que da nga ma laaj ni ma moo ci am ak ñan lañ doon ci saa si. pas ci saa si ci lendemain bi ak ci jour bi. donc ñu def méfait yi ils am na ñu ci blessé woon bi nu ñëwee di ñu ñu leen di laaj carte étudiant duñu ko joxe. Mhm, ndax amuñu ko amuñu carte étudiant. léegi ñoo ñu pour ñu def fuite day yomb parce que jour boobu amul kenn ku mënoon a téye nit. Mhm. criminel bi gënoon a mag. pas sa bopp nga tal mais criminel bi gënoon a mag bu fa ñëwoon jour boobu université dina rëcc. ndax lan parce que boo ko téyee jéem ko yóbbu wala nga jéem a am noo doxalee gars yi duñ la bàyyi ci loolu. c'est complice. c'est complice. pas ses complices mais tout monde parce que même yow bu ma ñëwoon di yàq nga ñëw am noo waxeek man te xam nga ma xam naa la. Mhm. kenn mooy jóge fa leen ni non non non dafay joué ak yow dilatoire arrête nañ dem yàqi te ñi koy def doo leen xam. Mhm, mhm. donc ñun génneel nañ ñu fa ay armes. loolu musul am. mais a bett wala comment est-ce que ça a pu vous euh, surprendre à ce niveau jour boobu doon nañ xalaat que ne yu mel noonu dana am mais à ce niveau nag fan fan ngeen nekkoon en fait. bett nañu bettuñu lu tax. bettuñu mooy université tant que ñu ngi d'accord mhm. que des non étudiants habitent à l'université problème bi day gën di continuer tant que ñu ngi accepter aussi ay nit ñu leen di fay xaalis ñu yor ay jaasi di ko génneel ay étudiants université du mës a avancer te xeex dina mës a am parce que dafa loo xamante ni mooy révolteloo nit ñi. Mhm. li leen di révolteloo mooy man. faruma benn parti politique je relève d'aucune obédience politique mhm. mais tey su ma ñëwee di romb gis ni benn étudiant bi ñu ngi koy néewal doole y a ce qu'on la solidarité estudiantine c'est su ma ko gisee néewal doole boobu dafa may yóbbu ci man naa révolté wu kon ñëpp mhm. donc loolu bokk na ci li nga xamante ni nii moo aggravé loolu la situation ñi doon commencé di grève far benn parti boo xamante ni parti politique la ñooñu matuñu woon jour boobu noonu ci suba gi matuñu woon cinquante étudiants donc li leen frustré mooy am na loo xamante ni. am na manifesté nañ ko après mu jeex. man maintenant nag c'est dans la nuit que ça a pris une autre dimension. non non non affaire bi commencé wul ci nuit bi affaire bi ci suba gi la commencé. suba gi la commencé. bi pro bi verdict bi génnee. bi waaw bi verdict bi génnee la commencé. Mhm, ok avant verdict bi sax am na ñu génnoon rassemblé wu. mais comme deux partis politiques ñoo am problème je pense que affaire politique ne doit pas conduire. nos actions syndicales mhm. pédagogiques et administratives affaire politique dañ ko war a def si biti mu doon affaire de gentleman université yàgg nañoo laal leader politique mu génn ay ñoñam di ko manifester mais pas de cette manière. Ah, léegi bëggoon naa xam dara euh, Modou euh, li fa xew saccage yi nga jàpp ne c'est du grand banditisme yéen ban lecture ngeen ci am naka ngeen ko comprendre. kes ce qu'il y a derrière comment vous compris. lecture bi ma ci am mooy mooy li ma la wax nii léegi léegi. on ne scie pas l'arbre sur lequel on est assis. oui mais li ma bëgg a wax mooy ñi ko def boo doon dugg seen bopp tey jii nii pour yow lan la parce que y' a y' a gouvernement qui nous parle de forces occultes y' a aussi certaines qui nous parlent certaines personnes qui nous disent que am na ay bandes yu ci rax yoo xam ne agressé moo leen tax jug sàcc mais là fii nii foo koy foo koy foo koy placé en fait laa bëgg a xam. fi ma koy placé mooy fenn fi am na ñenn ñi moom ay sàcc am na ay cas yoo xamante ni nii vraiment am na fa yoo xamante nii rus naa toog di ko wax ci télé. mooy lan mooy ci jigéen ak góor xam nga ci loo xamante nii tey suñu ay jigéen sonnoon nañ ci trop. trop trop trop ay tentative de viol moo bëgg a wax. effectivement biir université jour boobu biir boobu noonu. te loolu musul am. Basirou Faye Basirou Faye bi mu gaañoo. génn àdduna yàlla na ko yàlla xay aljana. amiin amiin ci la étudiants yi gënoon a am lu leen metti fuuf. Mm-hmm. parce que c'était leur camarade étudiant Fallou Sène bi mu génnee àdduna moo gënoon a metti fuuf tey lii am ballagay Gaye Balla Gaye fekkuma fi mm-hmm. moo gënoon a metti fuuf lii am te terewul étudiant demul di saccager ay bureau archive mm-hmm. wala ay bus toutes les facultés ont été brûlées malheureusement toutes les facultés ah léegi nga ne ginnaaw loolu y a eu mm-hmm. am na image yu ñu gis kenn ku xaw a siiw dëgg la sax nekkul université euh, muy euh, Pape Abdoulaye Touré Euh, am na ñu ne ñaari version am na ci am na ñu ne dañ ko jàpp kër Mansour Faye muy taal am ñu ne biir université lañ ko jàppee aussi mu bokkoon ci ñi nga xam ne ñoo doon ñoo doon yàq yow lan nga ma ci mën a wax. ñetti version la kon des na bu Pape Malick Ndour. le ministre de la jeunesse. d' accord xam nga ku ci nekk da ngay wax. Mhm. Pape Abdoulaye Touré ñun on a des relations avec lui mais pas des relations politiques en tant que camarade étudiant. bi muy nekk université. Mhm. ñun ñu bokk ci ñoo xamante nii dañoo tegalandoo woon benn coalition tudde woon ko coalition COCC c'est un membre fondateur de cette coalition. Mhm. il a été exclu de l'université en deux vingt et un n'est-ce mhm. pour une durée de cinq ans. de cinq ans bi am na feneen foo xamante nii lijjanti nañ ba mu fay jànge ci jàmm ak salaam cas boobu noonu man bind naa ci te lu tax ñu bind ci ñun waa faculté de droit c'est pas que Pape Ablaye toure étudiant. mais daf ci am ay mensonges yoo xamante ni da cee am te parfois day mat nga teggi tuuma. Mhm. pas dañ ko war a dàq ñun aussi dañ ko war a beddi dañ ko war a embargo dañ koo dàq université mu dem def ay mbir yoo xamante ni c'est purement politique c'est pas du tout syndical mais buñ ci amee ba nga xamante ni dañ ko jàpp ñu koy filme dóor ko gaañ ko c'était inhumain. Mhm. pour man criminel bi gën a garaaw. bi nga xamante nii rey na deux millions de personnes. il a des kooku am na ay droit mhm. kooku waruñu ko dóor waruñu ko filmer à ma grande surprise des étudiants ou bien des des gens de de, de sa même génération se permettent ñuy bind ay statut di def ay mbir ni kii moo doon koo xamante ni da doon joxe ndigal ngir ñu taal fac droit da doon comme si que moom moo doon influencer étudiants yi. Mhm. ma ne il urge. que ñun ñu démentir lii établir la vérité ba pare soutenir ko soutenir ko ci ban côté ci côté wu li ñu ko teg ci injustice ci wàllu dóor ko ci wàllu ni ñu ko jàppe loolu jaaduwul mhm. cadre politique am nag man duma ci dugg parce que man ak moom bokkuñu ay position mhm. parfois daan nañ am réeroo ci ay position yoo xamante ni nii peut-être da daan def interprétation bi man ma gise ko ne n'est-ce pas chacun de nu est libre mhm. mais je pense que ni ñu ko jàppee ak ni ñu ko def man la mu def xawma ko mhm. loolu duma ca dugg y a des les, les policiers ou bien les gendarmes yi nga xamante ni ñoo chargé de l'enquête ñoom danañ wax lan la def ce soutien jëm ci moom c'est juste humain moral amicale bu ma ko comprendre c'est soutien c'est moral amicale financier dinañ si ñëw insha allah lépp loo xamante ni yittewoo nañ ko parce que ñun nous sommes des humanistes am ngeen ay nouvelles am comment est-ce qu'il waaw am nañ ay nouvelle dégg nañu ñu ni euh, damm nañ ay tànkam damm nañ loxoom sonn na donc yooyu noonu yëpp euh, yëg nañ ko mhm. waaye ñun encore une fois de plus nous sommes une amicale apolitique oui, c'est dafa am ñu bokk APR ñu bokk suñu biir amical mhm. am ñoo xamante ni dañu bokk Pastef am ñoo xamante ni dañu bokk awale am ñoo xamante ni dañu bokk réew mi am ñoo xamante ni dañu bokk PS am ñoo xamante ni bokkuñu fenn. mais est-ce que kon loolu. la personne morale bi jiite dafa war a wax dafa war a def benn distinguo. Mm-hmm. ndax lii dañu war a def tout ce qui politique wala politique dañ ko war a écarter on a l'habitude de le dire bu ñu jàppoon si ñun ki nga xamante ni moo gën a doon criminel ci àdduna ñun suñu devoir de prédilection. en tant que amical en tant que étudiant mooy soutenir ko te loolu dinañ ko def bépp étudiant mhm. boo xamante ni dañ ko def revenons sur le cas des arrestations yi nga xamante ni nii mooy étudiant yi ñu jàpp yóbbu leen tey yóbbu nañ leen palais de justice mhm. delluwaat nañ leen ci cave bi étudiants yooyu dañ cee am certains parmi vous ont été appréhendés absolument mhm. am na ku ñuy wax Yaya Bodian il est un étudiant en deuxième année à la faculté des sciences juridiques et politiques monsieur Dabo il est de la faculté de médecine mhm. monsieur euh, Lamine Camara il est étudiant à la faculté des lettres monsieur Daniel Diatta il est étudiant à l'INSEPS mhm. tout cela que je viens de citer dafa am loo xamante ni ñenn ñi man damaa fekkee doon nañ def ay intervention ci ñi nga xamante ni ñoo nekk di saccager donc ñooñu à notre grande surprise bu ñu xëyee ñu jàpp leen vraiment peut-être nag autorité judiciaire yi wala policière mën nañ xam ñu lu ñu xamul mhm. mais dañuy wax autorité yi nga xamante ni ñoo ŋànk réew mi ak autorité yi nga xamante ni ñoo ŋànk justice ak université ñu jéem a diligenter dossier boobu ba ñu bàyyi xale yooyu ñu dem. am na loo ma wax mu desee leer ci man du foofu. d'accord këram en fii la ak pavillon yi nga xamante ni fa lay. man ay tur yoo ma jox. jàpp nga ne euh, ci sa gis-gis mën nga juum parce que nee nga li ci dossier bi xamoo ko euh, ils sont mêlés ni de près ni de loin ci saccage yi nga xam ne am na université dañ doon sax intervenir pour que yëf yi mën a mën a taxaw mais ñu teg leen loxo loolu nga ma expliqué wala. effectivement ku ci mel ni Yaya Bodian man j'en suis sûr et certain que ni mu ngi doon intervenir xam nga nit bu ñu la jàppee boo pas doonul góor yàlla mais boo amul benn retenu bi wala yenn yi tàmmoo ko. boo demee devant l' autorité judiciaire ak kum mën a doon. Mhm. suñu autorité yi fii dañ leen di jàpp. mais buñ ñu demee duñ xam lan la ñuy wax. <laughs> mu doon étudiant boo xamante ni deuxième année la c' est un innocent buñ ko jàppee mais mën na wax loo xamante ni xam te defu ko. en plus de sa ñu lay enquête te sa avocat ñëwul est ce que ñoom dinañ jël risque ni non nii bu ma waxul danañ ma dóor wala leneen ak leneen il peut avouer. alors que l'aveu et la mère des preuves. comme on mhm, dit mhm, donc je pense que étudiants yooyu noonu ñu jàpp leen. taxul li xew ci réew mi changé non taxul li xew ci réew mi mu changé bu nuy jàpp nañ jàpp les coupables et loolu nag ça dépasse ces étudiants ça dépasse les étudiants ce qui se passe dans ce pays honnêtement parlant lu ñuy naqarlu la c'est la faute à qui sa gis-gis c'est la faute aux politiques c'est la faute aux politiques honnêtement parlant parce que ñoo minoritaire no de tous les bords de tout bord de tout bord mm -hmm. la responsabilité elle est partagée quoi que l'on puisse dire mm-hmm. am na loo xamante ne nii tey man bugguma ci dugg mooy wàllu politique. Mhm. bugguma ci dugg de trop. am naa ci loo xamante ni man foofu la sama gis-gis ma mën ko fa yemale mais pour man kiñ tooñ kiñ tooñul ak lépp situation bi li koy réglé waxtaan lay doon ñoom ñooy kilifa réew mi. mais am na loo xam ne xew na moo Modou euh, politisation de l' espace universitaire. loolu c'est une réalité. absolument tey jii nii yow nee nga seen amical bi ñëpp a ngi ci biir maanaam tey jii fi ñu toll ci wàllum conflit euh, animosité est-ce que du nekk benn barrière benn obstacle ci li nga xam ne yéen bëgg ngeen ko man pour man fi ñu wàllu animosité jàpp ma ni benn pays sax toll na ko fa da ngay xool nit nii mu gis la nga koy gis kanamam di saxaar. parce que mm-hmm. bokk leen parti politique. et loolu amul woon. xamuñu ko woon c'est ci trois ans yi weesu. Mm-hmm. Sénégal c'est un beau pays Sénégal. dëkk la boo xamante nii jàmm ak salaam lañ xam ñun lii xamuñu ko lii lu ñu bett la tey suñu waajur yi kenn tëddul kenn nelawul tey booy dem émission sax dañ naan la sois prudent. Mm-hmm. alors que ñun on libre. c'est vrai ñun keroog damay waxtaan ak sama waajur ma koy nettali policier bi nga xamante ni dañ ko dóor dañ ko dóor xeer mu indil ma benn bayit ci alxuraan ni ma suñ borom lii la wax. Mm-hmm. tant que bés bi nga xamante ni nii tudduñu ko ni dangay dee doo ci dee kenn mënul wax ba nga dee. Mm-hmm. ma koy nuyu au passage. donc dama jàpp ni situation bi fi mu toll nii seuls les courageux vont parler mhm. et vont dire la vérité la vérité nag elle est amère ça ne pas plaire tout le monde les Sénégalais son en colère mhm. et la colère elle est de surcroît mauvaise conseillère boo koy déglu sa mer wala sa leneen lu ci bëri di nga ci dugg après di nga ko réccu donc réccu boobu nag tey ce qui se passe à l'université lu ñaaw la la direction des kuddu di kuddu mm-hmm. mais ça nekkul ni président Macky Sall moo ko moom mm-hmm. wala monsieur le euh, euh, directeur Maguette Sène c'est pour les étudiants mm-hmm. c'est le bon bon fonctionnement c'est pour le bon fonctionnement de l'université du campus social ñu naka la ñuy manqué fu ñu tëdd fu ñu nelawee ba pare di saccager ay ay restaurant ak ay bërëb boo xamante ni ñu ngi kaas boobu ba léegi pour que ñu ubbi ko am sa assurance seen li nga xamante ni am sa réalité bâtiment yi ñu tabaxal étudiants yi mais ñun ñoo fa nekkoon di ko sauver. loolu chef de sécurité bi nga xamante ni moo yoroon affaire AMSA bi mën nañu témoin ay étudiants ñoo taxawoon di ko sauver yeneen non étudiants di yàq ay garab di def lu leen neex donc loolu vraiment euh, dafa am loo xamante ni nii dépassé na réew mi. mais est-ce que Modou. Euh, ce qui est arrivé la dernière fois warul tax ñu xoolaat seen diggante ak les forces de défense et de sécurité maanaam euh, franchise universitaire yi permettre leen ñu fay dugg euh, tey jii nii est-ce que bu fekkoon ne ils sont près de vous très souvent à longueur de journée surtout yu mel ni bu amee ñu mën a teew anticiper du du yombal yu mel nii. loolu je pense que da nga may invité beneen émission. pour que ñu wax ci <laughs> xam nga lu tax rapidement rek s'il vous plaît oui. c'est une question mm-hmm. wax loo xamante ni nii. dama koy yemale foofu. Mhm. alors que nit ñi duñ comprendre fi ma bëgg a waxee. c'est vrai donc day mat détail. Mhm. par détail ngir ñu mën ci wax franchise universitaire yi am na étudiants yu bëri yu koy wax liiruñu texte yi. am na ay autorités yu koy wax liiruñu texte yi. Mhm. am na ñu bëri ñoo xamante ni ñu ngi ciy prononcé wu franchise universitaire rek lañ la mën a wax. mënuñu la ci wax benn paragraphe wala benn article wala benn alinéa. ni la lii la franchise universitaire yi tënk. donc loolu pour nga ciy wax day doon loo maîtriser dafa doon débat boo xamante ni c'est un débat technique tey policier. Mhm. bu duggee biir université na la leer ni policier boobu noonu du génnaat n'est-ce pas pour étudiants yi dañ koy sot mhm. ya a une mais a un travail à faire en amont bien bien avant pour que ñu xam ne ils sont pour pour pour yéen seen propre sécurité. ba bien sûr. Mm -hmm. bien loo xamante ni lu bëri. dama ci bokk position ak étudiants yi am loo xamante ni du ma ci bokk ak ñoom. que am naa ci ay doxee man maanaam kenn ci àdduna kenn mhm. kenn du président de la république du ñu nekk ci opposition bi du directeur kuddu du recteur du doyen du kenn man je suis un libre esprit mhm. je dis ce que je pense su fekkee damaa juum damay am euh, humilité wu xam ni damaa juum on me rectifie et après je passe mhm. mais là on est là pour défendre l'intérêt des étudiants n'oubliez pas que l'université a été classée première en Afrique de l'Ouest en Afrique francophone. francophone. loolu c'était c'était le travail de qui des professeurs de l'université nos administrateurs le directeur du COUD en euh, a joué le recteur a joué mais gars yi tey boo toogee. di wax loo xamante ni boo waxee loo xamante ni nii tey maanaam dafa jëmale ci parti bi mu ñu def lu baax ñu ni noo kii dañ ko jënd wala dañ ko kii man je kii konk je suis incorruptible amul autorité ci àdduna mhm. bu mën a génn message wala ma toog ak yow nga ni Diagne mës naa ko def sangam ak nangam les gens me taxent d'être l'étudiant le plus compliqué <laughs> parce que dafa am soubassement boo xamante ni dañ koo am am na solo te loolu valeur yooyu noonu dañuy continuer di ko incarner on est là pour défendre l'intérêt des étudiants pour passer une information mhm. il a un communiqué qui circule disant que les étudiants dañu tëj fi nga xamante ni fa lañu nekk leurs bagages en sécurité loolu kudd moo ko def mais aussi dañ leen di xamal ni danañ ñëwaat ndax am na étudiant boo xamante ni bi muy ñibbi këram tous ces bagages daf ko bàyyi néegam mhm. daf ko bàyyi këram loolu bëri na kon il faut ñu waxtaanaat xool naka la ñuy organiser ba étudiants yooyu noonu mën a replier wu ngir mën a jël seen ay bagages convenablement ah, beneen bi mooy beneen bi mooy lu ñuy déplorer mhm. ce matin on a vu que université dégâts yi bi mu amee gis nañ autorités yi ñëw di def constat ñun on est une partie intégrante une partie importante c'est nu qui détenons la masse nous sommes 93 000 ñi nga xamante ni nii tey dañuy liggéey administration matuñu 10 000 wala ca la ñay yem. Mhm. wala 15 000 nous sommes 93 000 c'est nous qui qui qui. waaw tout ce que tout, tout ce qu'on fait euh, pour moi cent moi et contre moi. Mhm. comme on dit. donc nag bu ñuy dem di def ay dégâts di ko constater. ñoom ils étaient pas là le jour des manifestation ñun ñoo fa nekk ñun ñoo mën a def compte rendu bu fidèle donc loolu ñu ngi koy fustiger man lépp lu ñuy def dañu ciy boole mm-hmm. boo ñu ci boolewul je me dis ñun duñu ay spectateurs nous représentons les Bien mm-hmm. tout le monde ne peut pas accéder à l'administration Diagne ah, une dernière question parce que temps bi jeex na euh, l'année scolaire est-elle menacée elle est menacée bien sûr mais l'État peut trouver des des des des des, des solutions. bien pour sûr pour sauver ce qui en reste. pour sauver ce en reste parce que ñun faculté de droit dañu doon dem examen administration jàppoon na lu 12 ba ñu xaw a amaat accord ak ñoom que dinañ ko repousser waat. Mhm. du woon lu officieux lu officiel mais c'était officieux. Mm alors pour man état li mën mooy jéem a xool chapiteau fac droit bi ñu yàq pour ñu defaraat ko. wala pour ñu am benn bâche boo xamante ni nii beneen chapiteau la ñuy placer pour étudiants yi retourner waat ñëw parce que année blanche du am année invalide du am section unique du am mhm. loolu du am étudiant bi wala dafa warul am duñ ko mënul am non mënul am xam nga lu tax mënul am faute bi jugewul ci étudiants yi c'est les politiques mm -hmm. c'est pas nous qui sommes